téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. jër ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen eh, ziare di jiital eh, ci nuyu bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax niki noonu la ñuy jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun moo xam fii ci biir réew mi la ak eh, li génn réew mi mbokk yi ñu nekk fii nag ci penk penkub jumaay Touba. nekk fii ngeen gis noonu li nekk suñ ginnaaw muy bâche yi nga xamante ni dara waralu ko dudul euh, bisub xasida bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko digle fii ci tubaa fii ci jumaay tubaa ak li ko wër digal ko am Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou ak mboolem waa axlu xasida waaye te Hizbut Tarqiyyah ñu ànd kook sëriñ bi ci liggéey bu am solo macha allah ñu nekk fii nag euh, ci euh, penk bi ngeen gis noonu bokk taalibe yi depuis boobu ba tey ñu nekk fii ci wàllu bâche yi di ko fi amal ngir waaja li nga xamante ni mooy bisub xasida bi nga xamante ni gis nañ ne mbokk yi ñu ngi koy waaj fenn fu nekk ci biir réew mi ak li génn réew mi ñu feggoog euh, sëriñ Amsatu Jaxate mu doon kenn koo xamante ne ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou euh, ñu fas yéene rek euh, indil leen vidéo bu gàtt boo xamante ni tolluwaayu liggéey bi waaye rawatina sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou taxawaay bi nga xamante ni amal na ko ci liggéey bi ànd koog sëriñ si Diop ak mboolem waa Axlu Xasida xam naa rek ci foofu lañuy ñuy dékk Baye Amsa mu indi ñu leen rek ci ak leeral ci yitte ji nga xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou amal na ko ci journée bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko digle fii ci Touba incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne di leen di baax leen siyaar di nuyu waa DMTV ci liggéey bu rafet bi nga xam ne dañ koy def waaw euh, ginnaaw bu ñu euh, ñaanalee mun Mountakha mu yàgg fi ñaanal Serigne Amsatou ak mboolem njaboot Serigne Touba gi yëpp xam naa tolluwaayu liggéey bi moom yaakaar naa yéen a gisal seen bopp. Euh, daaka naka bañ tàmbalee liggéey ba léegi lépp luy ñoŋal liggéey bi ak lu ko jëmee kanam rek moom ci ndigalu si am surtout ñu ngi ci su ko defee day mel ne daanaka ñu ngi ci daanaka mën naa ne bu doon lu ñuy jekk laal jekk nañ ba di xaar bis bi agsi rek ñu defe ko ni ko sëriñ bi bëggee su ko defee tolluwaayu liggéey bi nag moom daanaka lépp dañ koy tënk rek ci yitte ji nga xam ne si am sutu jox na ko liggéey bi bis ba nga xamee ne ci la sëriñ bi joxe ndigal li mu dugg ci nopp suñu am sutu boobu ba léegi maanaam foo toll yitte ju kawe ju nit di jox mbir rek si am surtout yitte ju kawe ju ko gën a kawe jox na ko mbir mi ngir ndigal li nga xam ne moom la ko si Muntaxa jox mu ànd koog euh, Serigne Youssou ak bi taraxee yëpp ak mboolem ahlu xasida yi si am surtout nag yàlla da koo bindee mu nekk nitu pëseef di murid saadix bëgg Sëriñ Tuubaa lool wóolu ko yaakaar ko doyloo ko gëm ko amu ci sago wëlbatikuwaat nag amaat ak cofeel gu mu seq ak Sëriñ Muntaxa goo xam ne ko cofeel gu yàgg la si Muntaxa it xam li si am sutu doon ci xasida yi ba tax mu jox ko liggéey bu sell bu rëy bii nga xam ne day mel ne na ma ko waxee woon ca bañ koy tàmbali ca ca waxtaan ya ma ne sëñ am sutu day sant nañ ko lu mu miin lu mu xam lu mu yàgg organiser loo xam ne yaakaar naa ne njumte du ci am moom nag yàlla defaat ci liggéey bii mu mel ne euh, man ci sama gis-gis ni ma ko gisee si am sutu keroog bi nga xamee ne ndigal li dugg na ci noppam ba léegi fooy foo fooy fooy fooy xalaat ab tolluwaay rek CM Sout wees na ko ci wàllu jëf boole koo itam jëfin wu sell woo xam ne ni mu jiitalaate si siñ yuusu ci liggéey bi nga xam ne lu ñëw mboolem luñ fi indi lu mu mën a doon luñ ñëw lu mu rëy rëy rëy danaan bu mu wàcc ba ci démb yéen a ko gisal seen bopp waa Touba ci kanam seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko def ci njiitu Sëñ ñaanal baax seen addiye ju rëy ju kawe jooju bi ñu ko indee fa saasa dane da koo xool rek daan waaye dana bu mu wàcc nañ ko daal yóbbu ko jox nii da koy boole ci ne nañ ko nañ ko yóbbu socc sax ba bi ma waxee socc ak luñ ko mën di jox daal luñ mën a doon danaan nañ ko yóbbu ca liggéey ba ngir rek bëgg liggéey bi jàkk mbuusi galaas ak mbuusi lu mu mën a doon ñëw di ko déclaré lu mu mën a doon danaa nañ ko yóbbu ca liggéey ba rek ci suñu yuusu ngir bëgg liggéey bi jot loolu loolu loolu ngir bëgg liggéey bi àgg ni ko sëriñ bi bëggee loolu nag maanaam bettuñu ñu moom moom moom ndax moom noonu la mel noonu la ko yàlla bindee noonu la ko suñ baa def mu mu mu ànd ak nag ndigal lu bees lu ko suñ tubaa mun taxaa jox loo xam ne fi may waxee yow nii moom day mel ne bés bu set day mel ne ndigal li tay la moom loolu moom naa ko ci moom maanaam boobu ba léegi ba mu tàmbalee bis bu njëkk ba jàppoon naa ne nam ci doxee jëpp mu woon mën na koo weesu waaye boobaak léegi day mel ne gën nañoo jub bi te yaakaar naa juróomi fukki fan la ci ginnaaw wala fukki fan ak benn ci ginnaaw waaye day mel ne bis bu set saa soo xëyee daal day mel ne tey jii la ndigal li ñëw nga xam day mel ne moom tey yitteem jëpp mooy ne ko sëñ bi amee ni ko bëggee kon day mel ne kooku kon mel ne na jox na yitte ji dayoo boo xam ne jox na ndigal li dayoo boo xam ne maanaam ku moom mi koy dund mënoo koo xam kon nag loolu day mel ne lu aja leeral la ba nit ñi xam ne moom daal xam naa ne ko sëñ bi digal moom ma nga ci ma nga ci nañ lool ne la ko ci sëñ bi dig fokk mu teg ci loxoom ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex ak ñu ko ñu ko ànd ak moom ñëpp lañu ci sëñ ba digal ñu defee ko nañ ko bëgg tey séntu lañu ci sëñ ba dig te xam ne noonu lañ ci tege loxo wasalaamaaleykum ci biir loolu euh, loo xamante ni ci wàccaay sëriñ Amsatu waaj ba ci bi mi ngi koy waajal ci bis bi loolu léppee day tegtale ne maanaam lii sëriñ Muntaxa wax ne lu waaye def ci xasida yi moom nga koy defal loolee da koy firnde gis nañ ne fan yi ci ginnaaw ak jamono ji yëpp sëriñ bi mi ngi koy waajal ci ci ci koom-koom mi nga koy waajal waaye mi ngi koy waajal it ci ay ay mbind xam xamante ni mi ngi koy génne ci ndigal li ndax lépp ndigal luñ la jox soo dee jëfe ndigal la lépp luy rafetal jëfin wa da koy boole ci biir ndigal la ndax suñu ndoxaa moom am njàng la woote ak yëkkati xasida durus ko yaa ngi dégg léegi nag xaris xasida desu ko jàng mukk te binduñu ko kon loolu mbind moomu day dikkaat ci rafetalu ndigal li la ci jublu ndax ku xam mbind xam sëñ Amsatu xam ne moom yaakaar naa buñ doon jóor fii li nga xam ne bind na ko ci loxol boppam yaakaar naa buñ ko doon jóor fii moom yaakaar naa bu bu ñu fi tasi kenn ku nekk bu ñu joxoonu xasida mën lañ laa jox xasida gum bind kon loolu day mel ne kon moom bind ko ak jàng ko jàngale ko xirtal ci nit ñi loolu moom daan mas a nekk ab liggéeyam te loolu moom mooy ab liggéeyam fépp daara joo dem daaraam joo dem ni ma koy waxee ci daara yi sëñ Saliou daara yi sëñ Amsatu joo dem soo xoolee sa càmmoñ da gis daara ji nga xam ne ñaar yooyu mooy mandargaam moom daaram yëpp ba daara joo ci dugg daara jàng bu timis jotee yet nga xam ne xasida xasi kër këru xasida la kon day mel ne rafetaluk ak cantuk ak xiruk ndigal li mooy mbind mi nga xam ne dañ koy bindaali xasida yi jébbalu ale ko sëñ bi loolu day duggaat ci biir ndigal day duggaat ci biir rafetalu kuñ jox ndigal muy seet nu ndigal ba ndigal la gën a gën a rafete ak nu mu ko gën a neexee nu mu gën a baaxee mu defee ko noona loolu daal moom ñu ngi ko ci yokk beneen bi ci desit mooy euh, pësseefu nosin wi nga xam ne moom la ko suñu am sut nose maanaam lu xasida moom xam nga da daa am lu ko suñu am sut nose noo xam ne fi ko waxe woon benn buum la doon defoon kon day mel ne am nañ pësseefu buñ mën a tànk ci suñu am sut boo xam ne jartu naa ne ko xool ci moom ni ko suñ bëggee dana ko amee noonu loolu rek mooy mooy mooy wax yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm te suñu am sut yokk koo ñaanal ndax wax dëgg yàlla euh, baat bi dafa tuuti nii ci waxin waaye baat bu rëy laa koy waaj wax ni mooy jàmbaar la waaw jàmbaar dëgg a waaw sëñ bi jàmbaar la lool jàmbaar la lool laa waaw <laughs> macha allah jërëjëf Baye Amsatou Diakhaté ci kàddu yu tënk yu mat la yooyu mbokk yi nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen di des ci fii ak liggéey bi lépp loo xamante ne ay wàccaay la yoo xamante ne ahlu xasida ñi ngi koy amal ak euh, isbu tarxee rek ñu fas yéene ànd ak yéen di tel leen ko nees tuuti kon ak suñu yeneen élément waaye fii fii la ñu yemandeek yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bi bokk ci programme bi national